suukar madaar ba ci li nga xam ne moom moo di saabu loolee di jëf joo xamante ni da leen koy jàppale ci daara yooyu lee ngir ñuy xeex bu baax a baax jàngoro jii di coronavirus waaye it dund goo xamante ni dana leen ci jàppale ngir ñi nga xam ne ñoo nekkee ci yooyu la daara. bokk na ci daara yi nga xam ne yóbbu nañ fa ndimbal gile di daara soxna maam Marème mu sëñ Abo mu sëriñ Sohaybu bu Mbàkke bi ñu agsee ki nga xam ne moo di sëriñ Mamour Lo leeral na li nga xam ne. moom moo sabab tànk yi. ndax teraanga nga xam ne dafa jëm ci dundu lu mel ni suukar ceeb diwlin saabu ak madaar ak masque yi nga xam ne soxna si lu ko ñor la nag nee na ngir ñu gën cee mën a sensibiliser xale yi ngir ñu di ko takk ndax lépp loo xam ne rek docteur yi wax nañ ni mooy tax doomu jàngoro bi ñu bañ koo wàllandi wala mu bañ duggut dugg suñu biir rek nañ ci gën a fagaru moo waral ñu war a raxasu ci madaar bi wala ak saabu laal gel alcoolisé bi waaye masque yi tamit ñu di ko takk ngir gën a mën a fagaru. ndax daara yi fi ne daa ñor Cheikh Mouhamadou taxa moo tax soxna Bali Mountakha jëfe ndigal loolu wax ni moom lu mu mën ak lu mu mënul fas yéene na ko def jàppale ko mboolem daara alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi moo waral ñu ñëw ci soxna Mame Marème léegi mu ñaanal ñu nañu dem leen ci soxna Waalo maga ca daara ja bu ngeen demee ngeen mën a gis xale yi saafanteeg ñoom leeral leen nin war a takkee masque yi ñu ànd ak suñu jëwriñ sëriñ Yuusu Yàdd ñëw fekk fi soxna Muminatu Mbàkke kon loolu moo doonoon jéego yi ak ginnaaw daara soxna maam Marème googu dem nañ ci beneen daara yóbbul ko ndimbal moom muy daara soxna may laxaat bi nga xam ne moo nekkee ca Touba Belel moom it soxna si jébbal ko ceeb suukar diwlin ba ci li nga xam ne moom moo di ay madaar li ñuy xeexee jàngoro jii di coronavirus. ñu ñëw fii ci Touba nag ñëw ci kër Serigne Cheikh Jaxate fekk fi nag doomi Cheikh Abdoulaat ji nga xam ni la maamam ñaanoon moom ñaan googu nangoo ci moom. ndax bi suñ tubaa ne zuriyatan tayyibatan tujaddidu nax jëna bil Moustapha tej taxidu gars yi nag danañ faral di ko firi naan sax képp képp kuy sëti suñ tubaa rek yaato sëñ bi ñaan loolu waaye tujaddidu ji da ci am solo mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw di jóg di yeesal li nga xam ne mooy sunna si fi rasul lay bàyyi woon sëriñ tubaa loolu la ñaan waaye ñaan googu nangoo na tey ci fii ñu ñëw muy kër soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne bi ñu ñëwee tey fekk ko ci daaray alxuraan ji nga xam ni day daaray boppam joo xam ni moo ko yoral boppam de lépp lu war ci daara ji mu di ko defal boppam te kenn fekk siw ko ci bi nu ñëwee nag mu boole noog doomam ju baax ji di Serigne di Madiane Jaxate moom Serigne Cheikh Jaxate moom Serigne Amsatu Jaxate kon mu mel ni lépp rek day day daara lépp day alxuraan waaye lépp day delluwaat ci Serigne bi ñu ñëw nag ci ndigalal soxna Bali taxaa mi nga xam ni mooy liggéeyaa ko ne soxna jaara bi ki nga xam ni yëngoom mag dalam ak yëppam mooy liggéeyal maamam waaye jaare ko ci buntam bii di Cheikh Mouhamadul Mountakha moo tax tey ñu xëy di wër mbooleem daara yi nga xam ni ñoo féete fii ci Touba ci li ci ëpp bokk ci daara yi rawatina ci mbokk yi si nga xam ne ay soxna lañ yor ay daara waaye ñu ñëw nag fii ci Touba Belel di dëkku Serigne Abdoul Ahad fekk si fi soxna Maymunatu Mbàkke bintu si Abdoul Ahad ñu ñëw soxna si boole noog Serigne yu Yuusu Yàdd mii suñu jëwriñ ak Serigne Morlo mi nga xam day sotu Serigne Maxtaar Bintaloo ñu ñëw nag indi loolu nga xam ne mooy ceeb yeeg dëwlin ak suukar ak masque yi nga gis noonu xale yi takk ko ngir ñu gën leen a mën a sensibiliser ba lépp lu tax doomi jàngoro bi bañ a dugg ci daara ji rek ñu xeex ko ak madaar beeg saabu bi ak gel alcoolisé yooyu nga xam dañ koy raayoo ba tax doomi jàngoro bi du mën a agsi ñun wala bu ko keneen jëlee feneen dugg ci daara ji bu ñëwee dana fekk ñun ñu fagaru ba jàngoro jooju du ñu mën a wàll. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e, boole mbokk yi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo gën a sell yéen mbokk yi ñëw nit di sëriñ Youssou ak sëñ Mamour ak sëñ Mor ak mboolem ñi ngeen àndal ñëpp it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare ci weeru koor wi tëdd yi ñu ne e, di ñaan yàlla saa borom nangul ñu sunuy koor nangul ñu sunuy jàmb yàlla lépp luñ ci def ci lu baax yàlla nañ ko yàlla nangul te fulal ñu ko ci barkeb Seexul Xadim yu loolu jàll yëpp ñu ngi ñaanal suma xalifa bu tedd bu baax bi di sëriñ Mouhamadul Mountakha yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba lépp loo xam ne yéene ko ci yoonu Serigne Touba bi rek ay naalam mu àggale ko ba naal yeneen i naal te lépp ñu ànd kook moom te ànd ak wér ak ak tal ak i xéewal te lépp lu mu santaan it kenn bañ ñu caaman ci barkeb Seexul Xadiim ginnaaw lool nag Serigne Mamoun ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ci turu soxna su tedd si leen yebal di soxna bari di soxna su baax su tedd wax dëgg yàlla di sunu waajur di sunu lépp jëf ji mu jëf ci daara jii di daara soxna may bu Seex Abdul Ahad euh, bettuñu ci moom euh, ndax Euh, soxna Bali kuy sa waajur sëriñ Chouaïbou bu yëkkatee ay alalam du ko jëmale ci daara kon du bett kenn bu loolu lépp jàllee jikkoy boppam ak ku baaxam rek ci loolu la mas a nekk naka jekk kon bu wëlbati quoi sëriñ Chouaïbou di waajuram bu defee lii ñu bett suñ nee soxna Bali mu sëriñ Mountakha moo jël ay ndimbal di ko joxe ci daara ji kuy sëriñam ñu ne sëriñ Mouhamadul Mountakha kooku du bett kenn ndax yaakaar naa kuy bëgg lu baax ak kuy dimbali daara kuy bëgg diina bi egg si ñun sëriñ da ngay taxaw kon bu nekkee suñu ndaxaa di sëriñam mu nekk moom kon bu jëfee ci daara it du bett kenn kon daal ci turu soxna may mi nga xam ne mooy kii daara ji soxna Bali moom duñ ko sant dañ koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal daal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak barkeb weeru koor yu ñu ne lépp loo xam ne yéene na ko ci yoonu maamam yi rek yàlla ko yàlla may kàttan ak wér bu ko mën a àggale te lépp ànd ak wér ak tal ci barkeb Seexul Xadim ci turu soxna seeg donga yi nekk ci daara ji ñëpp ba ci man mii nga xam ne si maa yor daara ji ñun ñëpp daal sant nañ soxna Bali bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax baax a baax sant nañ ko fa cant amul tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye nag li ma wax léegi rek ñaan gi moom nay wax amin fu mu toll rek waaw bém na fepp ceeb daal ci lii mu jafe ak suukar fepp ci toll rek yàlla na ko suñu borom fulal lépp doon ay yiw ci barkeb Seexul Xadim ndax wax dëgg yàlla daara yi soxla nañ ko te it wax dëgg yàlla moom daal euh, jëf ji mat ndax mat na sëkk sëkk sëkk ndax lépp loo xam ne lu soxla wala rek indi ko fi muy ceeb suukar masque yi di saabu yi lépp wax dëgg yàlla kon soxna si amuñu fayam yàlla na ko yàlla taxaw daal ci barke sëñ Tuubaa nee neen ko daal li mu bëgg lépp ci ko xam yàlla ko yàlla defal beneen bërëb boo xam ne demaan nañ fa yóbbu fa ndimbal gi nga xam ne soxna Baali Muntaxa moom la doon jàppale moom moo di internant bu soxna Muslim Mbàkke moom moo Moodu sa Jeng di bërëbu sàkkuwaay xam-xam soxna si nag moom it jàppale leen ci li nga xam ne moom moo jëm ci ceeb suukar diwlin ak li nga xam ne moom moo di ay détergent lépp rek ngir jàppale leen ngir ñu xeex jàngoro ji di coronavirus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 mooy minanul baaxil xadim kër seex cheikh mouhamadul moustapha al basir ñu fekk fi soxna muslimatu mbàkke bintu cheikh moustapha fallilu muy jàmbaar di liggéeyal maamam fii di ko jaare nag ci alxuraan ku ñëw fii rek dem daara ja ca poroxaan da ngay xam ni li sëriñ bi ñaanoon saa borom defal na ko ko mooy yàlla may ko daara yoo xam ni dees na fa sàkkoo xam-xam ba ku fa génnee mën doon njariñu lislaam ëllëg waaye moom mii ñu fi fekk nag mu bokk ci ñi sëriñ bi doon ñaan naan zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu baat boobu lu jar di leeral la ndax bu nee zuriyatan tayyibatan tujaddidu waaye tujaddidu gi nag moo tax mu sëriñ bi ñaan tujaddidu mooy ngir yeesal nahja nabiyil Mustafa tajtahidu li nga xam ne moom la fi Seydina Muhammad bàyyi woon te loolu dara jiituwu ci jàng ak jàngale te Seydina Muhammad nee na xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale kon moom fa maamam tegoon tànkam rek la teg tànkam kon soxna musli lii muy def mën naa ne umma islam yi bépp la ko defal soxna baali muntaxa sa bàjjan sa xarit sa wëllëre nee na lii moo ko tàmbaleeg yéen jàppale leen ko ci liggéey bi nga xam ne ci ngeen nekk tey ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko fi sa borom yamale képp ko mu dalit yàlla na la sa saafara ba mu den ci yow soxna su baax si nga xam ne moo leen fi yebal ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne njëkkewul tey muy ay taxawaayam ci daaraak lépp loo xam ne ni lu jëm ci doomu aadama la waaye liñ ci njëkk a jànge mooy eh, ndigal li sëriñ bi joxe woon moom dégg na ko waaw ndigal li sëriñ bi joxe woon ci ñu jàppale daara yi dégg na ko waaye ba ko déggee jëfe na ko kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax ci turu soxna Muslim Mbàkke di ko ñaanal bu baax suñu borom tabaaraka wa taala gën koo taxawu gën koo sàmm ba naa lii mu am yépp mu àggale ko comme noonu nga ko waxee rek ndax euh, ndimbal moom la ca ëpp solo mooy ñu defee ko jox ko ña ko soxla waaye ku ne xam na ne daara yi waxtu yi ñu toll euh, soxla nañu ko loolu nag xam gi ko sëñ Muntaxa xam te moom noofalaayu nit ñi rek nekk yitteem waaye jàmm ñi am jàmm rek nekk yitteem moo tax daanaka keroog bi kàddoom jibeek tey ñu bëri ñu ngi bàyyi xel kàddoom googu kon moo tax jëfi soxna Baali ji ci loolu la tàbbi soxna si mi ngi leen di xamal yéen ñi nga xam ne moom la yónni su ngeen demee ngeen jotale ko cantam ak ngërëmam xamal ko ne jëf ji rëy na ci moom lool waaye rëy na ci daara ji xamal ko ne it mu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax su borom tabaaraka temps taala gën koo sàmm te gën koo aar gën koo taxaw ba yéene yi mu am ci liggéeyal maamam yëpp mu def ko nu mu ko bëggee ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi xëy na euh, bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye daal kàddu cant la ak cad kàddu ngërëm yu jugee ci soxna Musli jëm ci soxna Baali ci taxawaayam bu rafet bii nga xam ne am na ko ci doomam yi nga xam ne yëg na ne ay sëtam ñoo fi nekk yëg na ne liggéey bi moom la ko soxna Mously di eh, defal yëg na ne fii daaraam la yëg na ne fii ci këram yi la bokk xam ne ñi fi nekk ñoom la moom lañ fi nekkal yëg-yëg googu nag loolu rek moo waral eh, taxawaay yéegi ci aju yëpp ñu ngi sant bu baax tey gërëm di ziar eh, di gërëm it mboolem ñuy jàppale soxna Mously ci liggéey bi yëpp mais mboolem daara ji soxna yi fi nekk muy soxna jaara yéegi ci aju yëpp ñuy ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jëf yi nag lenn la ci li nga xam ne soxna Baali Muntaxa def na ko ci ba jàngoroy coronavirus gi amee ci dëkk bi ba léegi saa su ne mi ngi jàppale ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ di jàppale it daara yi ak mboolem bërëb yi nga xamante ni nit ñi dañ fay dajee lépp rek ngir xeex jàngoro ji di coronavirus ngir jële ko ci réew mi